نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان shams mooy yonent bi mu ne sant ñeel nanu nun waa ahlullaahi ba yàlla jëlee jant ba mu fenk fii ci saw bi xamdan lahu bi tuluu'i shamsi maaribana faradda layla nahaara ba'da zulumaati bi mu nee cëpp fii lëndëm dafa daw mu indi baatu laa ilaaha laa ilaaha illallaah bi nga xamante ne mooy leeral sunu àdduna mooy leeral sunu àllaaxira xamdan lahu ismuhu الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والعزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم الصلاة على من Amen. dafa wax ne. xam nga aaya boobu ay talaa yi moom la ñu firee dellu seg yonent bi. Cheikh. huwa allazi baasa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimu alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin démba wa axarina minhum lama yalhaqu bihim wal azizul hakim zalika fadlullahi yuti man yasha wala zul fadlil azim ñun mooy waa laaye wa axarina minhum mu tëdd ni inna allazi farada alayka alqurana la radduka ila maad qul rabbi alamu man jaa bilhuda wa man huwa fi dalalin mubin man jaa bil hudaa kan la almahdi suma salaatu ala man لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وفن الجل الدرير xam nga daf ci am yoo xam ne bu ñu ci xalaatee war a xam ne dellu si gi ñëw na ci alquranul karim laqad manna allahu ala almuminin man yàlla maa bëggal jullit ñi am de isbaasa fihim rasula min anfusihim kon ki yàllay wax day dudd ci jullit ñi yàlla yónni waat ci biir jullit ñi mhm. Mhm. نار mm-hmm. naan rabbul masrixi wal maghribi laa ilaha illa wa fatahi su wakiila mooy borom penku mooy borom saw amul benn buur bu dul moom booy wakkirlu wakkirlul ci moom waaw kamaalul mu nga naan min Muhammadin ibni Abdullah ila ibni Alxasan mu nga jóge ci Mamadu Abdullahi ma jëm ci kan ibn Alxasan doomi Alasanda mhm. mhm. Michel Seen it gis leer ga mu jóge penku def jëmm joo xam ne leer ga moo gën a leer janta nee na toxoo ah, xam nga bàyyi lay dane bi ma yéen yaa na dañ ko ne yaa naawe woon màkk yenu leer yaat sunuy ruu ba ngay cëppee lu ngor riir way dikk tu dirwaat ku gëm ñu gëm ku bañ duñu tàggoo ba diwaat لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا waaye nan lañ <laughs> ko ma ko mën a firil na leen maa xéewala jullit ñi way gëm yi génn ci ñoom ab yonent yónniwaat ko ci ñoom yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim bàyyi lay indi xutba wa yuallimul kitaaba wal xikma wa in kaanu min la fi dalaalin mubin moo tax ma ne ginnaaw nit dinay gëm ba pare réer bàyyi lay indi wala daalin amin wala daalin amin wala daalin ngir nit kat di nekk jullit ba pare réer ndax dañoo réer Seydina Limaam la ma wax ne ba muy génn àdduna mu ngi naan xaddan xaddan ay na ana xaddan ëllëg ëllëg ëllëg ëllëg wa axarina minhum lama yalxaqu bihim wal azizul hakim ëllëg ëllëg ñu naan ndax ayam ca Aysa lay wax waaye kuy dem àllaaxira nooy lijjantee ay ani man ëllëg ani fan la ëllëg li ma wax ne ëllëg booba tey la waaye ëllëg ja moo nekk tey tey bàyyi lay ni mën a dimb mën a tey anbahal qudsiina wa ruhbaana xam-xam yi ci waa kër Moussa ak waa kër Isa yëgle woon nañu ñëw yenent bi waaye mu ñëw ñu weddi ko waaye itam sunuy boroom xam-xam yi siiwe woon nañu ne limaamul mahdi dina ñëw بالورد ياخذون خط waaye borom xam-xam yi itam am na ay riwaayaat yu wàcc dellu si Seydina Limaamu te siiwoon na waaye ñoom itam dañoo weddi Seydina Limaamu xalqillaahi ngir ñooñu ju doon néewal doole wa najalahum a'immatan waaye xam nga xarala gi fan la cheikh wa najalahumul waarisin kon du ñu yor lu bees dañuy doon li fi gën muy maadu yi ak isa kayfa antum kayfa antum kan fa kayfa antum iza nazala ibnu maryama fiikum wa imamukum minkum wa najalahum a'immatan wa najalahumul waarisin

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما xoolal boobu jagle daf ci am yenn digle yoo xam ne yàlla da koy defal ba porom door kaa digle shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil xisti laa ilaha illa huwa al azizul hakim ne ya ayyuha allazina amanu skuru laa bin wa bukratan asila huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatu yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur wa kanina rahima bàyyi leen baat boobu muy laa ilaha illallah ñu jëli ci lëndam dem yóbbu ñu ci leer dafa seede ne moom mooy yàlla ba pare nag am ku mu fonk nga xam ne lu mu bind moo tax mu bind ko mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi jiitu yàlla dikk ko dafa commencé woon di julli ci moom ak ak ay ay malaaka ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu xelam ci bu ñëw ka yàlla ne woon malaayika yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ñu yor salaatul fatiha mu ne limaamul mahdi yu bu ñëwee mu ne wa awliyaullahi yadxuluuna zumratana bilwirdi yaaxuuduuna xatta al imaam al alami al mahdi fi aaxir al azminati al maati bàyyi laay lan la faatiha mu def ko téeméer astaghfirullah al azim mu def ko téeméer salaatul faatiha mu def ko téeméer laa ilaaha illallah mu def ko téeméer allahuma salli ala sayidina muhammadin il faatihi lima uxliq wal xaatimi lima sabaq naasiril xaq bil xaq ñaari lan la ñu tëjoon mu ubbi ko mu ne woon daal di leen doon wax bi daal di ne. ma mu mel ni da nga ma laaj ne ma waaye yow dellu sa gi yonent bi ngay wax dellu sa gi nga firi ko ci wallazi ba'asa fil ummiyyiina rasuulan firi ko ci laqad manna llaahu alal mu'miniin firi ko ci inna lazi farada alayka alquran la radduka ilaa ma'aad waa lan la fiy ut qul innama ana basharun mislukum yuuhaa ilayya أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك وقل بربه بعبادة ربه أحدا képp koo xam ne yaa ngi yaakaar dajeek sa borom Allah bés ba ñuy gis yàlla ci àjjana ñu ne moo dax àjjana aman yaamal misqaala zaratin xayran yara waman yaamal misqaala zaratin xayran yara man yarju liqaa rabbi fal yaamal amalan saalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada bàyyi lay ñëw fekk ku yor jàkk yor xërëm yor jàkk yor xërëm génn ci jàkk dugg ci xërëm gëm nga yàlla kenn mënu la kaa weddi subhaana rabbiyal aala kenn mënu la ko weddi subhaana rabbiyal azim kenn mënu la ko weddi ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من أنا القائل wa ana alqaa'il imaamullahi kullu ma amartukum bihi min al'amali saalihi albadani walqawli saalihi allisaani insha allah akunu amaamakum wala tablugunani fihi wa ana alqaa'il imaamullahi wannabiyu walrasulu walxalilu walxabibu walimaamu waddalilu yonent mi ne kayfa antum nasala ibnu mariama fiikum wa imaamkum imaam nga daal di ñëwaat te bàyyi la amul weneen tur wu walidul karami al imaamu man dozor imaamu man naati qaala